ci azaliyatu yàlla gi nga xam ne foofu la doon maye may jël may yonent bi jiital ko ci mboolem may teg ca kam ci teg ba ci wàllu yi imaam bu sori waxoon rek doy na jiitu yonent yi ci yonent bi sallallahu du jiitu seeni may ci mayam waaye jiitu jiitu surga la rek ca njaata yi jógal nga dem tool mu jiitu dem ca tool ba njaata bi soog a ñëw jiitu googee tekkiwul jiitu maa amee pour maa amee ndigal waaye jiitu dañ maa dañ maa dañ maa yebal yebal rek la kon ay mbir yu doy waar la waaye Seydina Cheikh ñu la melalee moom nag mooy xaatimul awliyaa moo tax mu sañ wax lii ci ndigalal borom lu yàlla yi duñu wax dara ci seen bakkan waaye dañoo fekk pib yàlla bee leen sant wax rek ñu wax ngir jëriñe لباير دلان وغن سيدي علي إن كنا شت الأحباب في خدمة لي فإنه لا شيء أعظم من الخدمة لي وقت يبري دفن كليد في كلام سكرين إنما هي كلام مرشدين فإنما هو كلام مرشد نافع صدر عن إذن دور وقت يو خمني وقت كوي بوكري ولا دنگ دور كو خمني وقت كورن كوي ماندي لا وقت لنا دفنك روح يو Euh, waxi kuy gindi la waxi ku am ndigal la waxi ku bëgg jëriñ la waaye wax la joo xam ne tamit dafa jóge ci ndigal kon wali yàlla yi moom seen wax noonu la boo ko xamul nag ba àttunoo maandu ci rek def na abdu lu defoon kalaamul awliyaa yi la su afhamu li anna na yonent bi tuddee na yonent bi sallallahu alayhi wa دنجا عين الحق موي فيم وخني خم نغا داف وخني ا ونوري كلام الذي ملات بكونك الحائط بامكنه المكان موي سا ليغيغا خمنه يا كو داجالي سي مبلم بار بولم بلاص رك دنجا دنج نفا من خنا فينا واخ جوجو لم واخ سي القران وعلم ان فيكم رسول الله بولم فو نيك رك mi yónneen tugaa ngi ànd ak yow ba ca topp mooy allahuma salli wa sallim ala ayni alxaqi ayni alxaqi itam leeral na ko ayni alxaqi mu ne moom boo ko wax na wax nañ ko ci ginnaaw mooy daal lu mel ni yool nde boo xam ne dafay dafay wal dafay dafay dafay bal rek dafay bal rek di sotteeku képp ku ko jege rek man nga ca man nga caa jëriñu loolu mooy aynil xaq aynil xaqi boobu allati tatajalla minha urushul xaqaayiq ci moom lay taaroo ci moom lay taaroo gën jaa kawe ci ñoom ay xaqaayiq njolloxtanu xaqaayiqi dégg nga ci ñoom ci moom yonent bi sallallahu lay ràngoo niki rek jaaykat boo xam ne dafay ràngu daal di ñëw ci ñëw ci magasin bi waa ji ko ba mu fees rànguwaay boobu mooy yonent bi sallallahu alayhi ñoom ci yonent amee ak leer ci yonent bi sallallahu alayhi fooree ci moom la ñuy moo tax mu ne yàlla nga julli ba tey te sëlmal ci kii nga xam ne mooy aynil xaq mooy jëmmi dégg nga jëmmi feeñ waa yàlla ci dëgg jëmmi feeñ waa yàlla ci dëgg ci prix mi nga xam ne nit man ñeme na koo wax nit man na koo wax ñépp man koo dégg ci dégg bu yomb te lii day am na ay xeeti prix biit yoo xam ne yu xóotu la eh, ku ci nekk rek ak ba nga ku ci nekk ak ba nga ci toll كن عين حق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم جمي معرفة بالله الأقوم بيجنا بيجنا كفار بيجنا جب بيجنا بيجنا بيجنا بريبارة بيجنا دفر أقوم دا لب لباخن شبيرم moo عين المعارف مومي جمي معرفة بالله الاقوم بيغن موي معرفه بو خامني دال ا آه، دو معرفه بو بو خامني دنجكون دنجكو نيو رك بروغرامي كو لي موي نانغام لي موي نانغام يعني معرفه بالله بو خامني دا فاي برانشيو ديريكتومون تي يالا كوم خمو يالا لول موي معرفه بو معرفه بالله يونيتي مو جيم خم خم بو عين الحقائق ولا عروش حقائقي آه، حقائقي يالا ياب dégg nga ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu amee tëjalli waaye nag siraatika taamu sa yoon wu mat woo nga xam ne al asqam mooy bi gën bi gën jub bi gën maandu asqam bii nag moom laa lay wax ne la gaa yi ñuy ne ci la ñuy jéem a jamee yooratu kamaal ñu ne asqam feebar lay tekki pourquoi Seydina Cheikh radiallahu anhu di ko dugal ci ci salaatu bi te fekk xamuñu ne asqam mu ngi mooy tolloog aadal bi gëna a ndaxte mu ngi jóge ci saqama yasqimu ay kaadala yaadilu wér na ci maandute mooy lépp luy maanaam maandu rek mooy asqam mooy mooy tolloog adala maa maandu na moom saqama fala baat bi jóge moo ko adala ñoo bokk wëzn ñoo bokk maana bokkul ak waa ji ne saqima yasqimu bokkul waa ji ne saqima saqima mooy feebar na bokkut ak saqima ak jiifir yi feebar ne yasqimu dina feebar ay marida bokkul ak saqima gi tolloog bële saqama la saqama yasqimu mooy tolloog adala yaadilu maandu na ñoo bokk moom addalu addalu bi firi maandu ñoo bokk maana ñoo bokk itam suñu leen di tëggee kon waa jine baatu feebar lay tekki ba tax mu naan loolu mànkite la ci salaatu joxratu kamal boobu da ngay gis ne rek ñàkk xam la te li ma wax nii ci lisaanul arab demee ci lisaanul arab di nga ko fekk mu ñu leeral ko daal di ko yaatal marokin yi arabu maghrib Maroc ba léegi dañu utiliser baat yi baatu baat bii ma wax la saqama ci luxatu maghrib ñoom dañ koy utiliser ba léegi ñu ngi koy utiliser te wax dëgg yàlla ku ne xam na cëslaayu eh, tariqa yi ci wàllu maghrib kon nit ñi nga xam ne dañuy jéem a goroo jal te li gën a doy waar di waxee ci niveau boo xam ne yàlla xam na ne xamoo ci daara mooy waral loolu waaye li ma la wax ci ay boroomi xam-xam yoo xam ne bind nañ ci tarixa bi dellu ci rek waaw lii seeni mbind di nga gën a di nga gën a xam ñenn ñi wax sax ci borom xam-xami tarixa bi ne su fekkoon ne asxam gi firi feebar la sax loolu lu jub la ndaxte baatu saqam biñ biñ foog ñoom ne moom la ba tax ñu koy jéem a sikkal boobu yàlla tudd na ko ci alquran ba tey bi muy wax di melal yonent yàlla yunus di wax ne fa nabadnaahu bil araa wa huwa saqim ci suratu saafaat aya 145 muy leeral kon su fekkee ne sa xam la sax loolu jub na ndaxte yoon wi nga xam ne dafay feebar loo mboolem dafay sooŋloo borom wëllis njubadi yonent yàlla ibrahim bi ko gaañu woo ci seen mbóosóor seen jaamu xiram yi du nii sa xim la waxoon waaye feebar ga du feebar ak jëmm mooy mais feebar naa ci yéen li ngeen may woo duma ca dem duma ca mosu dem kon su fekkoon ne sax dafa firi feebar mooy yoon wi gën a feebar wëllis wullis njubad yi yoon wi feebar dégg nga ci mooy yàlla yoon wi feebar ci ci mooy ndigal ya dégg nga yoon wi feebar ci lu yàlla bañ loolu sax bu fekkoon moom la sax loolu lu xel mën a nangu la te sax far du moom baat bi mu ngi jógee ci fii ma wax la muy maandu asqam bi gën a maandu allahumma كون اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروج الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام أسقم من باتي اللهم صل وسلم ويا الليل نجا جلي تسلم على طلعة الحق بالحق تي فين فين ويا بي تي دك nga xam ne yàlla buy feeñ ci xaqatu muhammad yi lay defee tijjal lii ولا والله والله معطين ولا انا انا قاسم والله معطين كي من ماي سيد لي يالا موي جوخي كوني نبي صلى الله عليه وسلم موي طلعت الحق بالحق نينغ اتي الله واتي الرسول مو ملني داغي توپ يالا بو بار توپ يونيتي ولا داغي توپ يونيتي بار توپ ديري توپ يونيتي موي توپ يالا kon kii mooy feeñuwaayu kale loolu mooy ci nga mën a déggee taati xaq ayni alxaq mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayni alxaq bilxaqi soo ko xamul mu ne la alkanzi al azam mooy kopporfooru yàlla bi kopporfooru yàlla bi luy kopporfooru yàlla bi mooy yàlla lépp lu muy mayeti doomu aadama mu ngi koy jaare ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee wurus la may yàlla yi e bu dee wurus la sadafa mooy yonente bi salallah alih wa sallam kon kay buñ la ne moom mooy moom mooy ki nga xam ne mooy koppar fooru yàlla bi waaji eh, déggal la waaji wax mu ne yonente bi mooy koppar foor yàlla bi waaye waaye kay koppar foor bi mu fa nga ci moom ngay jaar jot ci or bi wala jot ci xaalis wala nangam boo ne du ma jaar ci moom te moom moo ko yore moom lañ ko dénk xëy na bu baa doo doo si jot de kon mooy ay mooy al kanz al azam moo taxoon yàlla wax ci alquran ne yow Muhammad maa la may képp ku jàppati beneen diina burut sa diine ji duñ ko nangul xanaa loolu kay firi na wax ji góorgóorlu boo mën a def ci yàlla defee ko ci feneen furut ci diinaay muhammad ji sallallahu alayhi wa sallam yàlla du ko nangu kon kay moom mooy kanzul azam mu ne ko nag ifaadatika minka ilayka sa bëbb gi nga xam ne minka ci yow la tukkee ilayka ci yow lay dellu ixaatati nuurin mu talsam farsax moom moo farsax moo farsax peeg li nga xam ne mooy leer ak mbóot talsam mooy mbóot lépp loo xam ne dañ ko nëbbal dañ ko nëbbu mbóotal ko ba kenn du ko xam loolu mooy loolu mooy talsam wax ah, gaay yëngu ci asalaam mooy leen talsam du tur maanaam talsam mën ngaa jël léegi turuwaa ji euh, jël ay baat def ko ci tur bi ay ay xaraf la nga jël ko soppi ko def ko ay ay numéro maanaam sënk ko ci ci un deux trois quatre bind ko fenn koo waxu ne mu ngi fii du ko xam loolu mooy talsam jël mbir mi mbóotal ko mooy tariqatun axfa dégg nga comme ni mu ñëwee ci lisaanu arab yoon wu xam ne dañ ko mbir mu xam ne fañ koy jaar dañ ko nëbb ba du neexal loolu mooy talsam gars yi nag boo xam ne talsam dañ foog ne aw turlu turla woo xam ne dégg nga moo tax buñ ne talsam mooy leer goo xam ne dañ ko mbóotal moo tax li nekk fii ci ay mbóot ñun tudduñu ko te duñ ko xalaatu tudd ci ndeneer waaye jahratu kamal am na ci mbóot yàlla loo xam ne ah kéemtaanal yàlla la kon dañuy firi baadi rek ci anam boo xam ne anam bu comme ko defoon ci eh, ci saatu rek waaye dëgg-dëgg jahratu kamal lam làmboo ni ko waaje waxe woon rek du lu ñuy waxtaan la ak ab am kon yonent bi mooy al kanzul azam moo tax mu ne ko talaat alxaq bi waxi kanzul azam ifadatika minka ilayka ihaadati noori mu talzam yonent bi salaa sallam bu jullee ci yonent bi ni melal ne ko ifadatika minka ilayka yonent bi mooy bëbbëg yàlla goo xam ne jógee fi yàlla dellu ci yàlla xanaa loolu mooy tolloog ana min allahi wal muminuuna min ni yonent bi saa ngay mu ngay mu xadara xadara bi ne man maa ngi jóge ci yàlla julli di jóge ci man waaye ma ndax julli di la rek lépp lu tënku ci xaqatu muhammadiya lépp loo xam ne mooy feeñu waaye yàlla ci jaam ñi loolu mooy xaqiqatu muhammadiya ndaxte yonent bi يا الله بمن كنت كنت كنت لم أعرف فأحببت أن أعرف حديث قدسي فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا به يعرفوني ma nekkee ndam lu kenn xamul ma ma bëgg ñu xam ma ma def tëjëli sama bopp xamal la ma soob xamal mbindeef boo xam ne dañ may xamee ci moom lañ may xamee mbindeef boobu nag moom yàllaa ko xamal te ci yàlla lay dellu ifaadatika minka ilayka dégg nga su ko defee loolu mooy bëg-bëg yàlla ki nga xam ne daf koy def te jël li te lépp rek di delluwaat ci moom lépp inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa ifradatika minka ilayka ixaatati nuuri mutalzam melal gii nag julli gi melal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu tëjee ku ne sallallahu yàlla julli ci moom waala alihi ak ay ñooñam salaatan julli goo xam ne tuarrifuna danga li ñu xamalee danga ñu xamalee biha dana ñu xamalee moom yàlla dégg nga biha ci julli ga iyaahu moom yàlla julli ci yonent bi xeeti julli gu foor gi moom ki saxaabaam waaye julli googee muy julli ci moom yal na ñu sa xamale waale boppam amin yaa rabbi waaye waaye lii kay nit mën na ko dëkkee bis bu nekk nga def ko fukki yoon ak ñaar ak la muy ànd ak ci ay salaatu faatihi ànd ak ci ay laa ilaha illallah la muy ànd ak ci ay istigfaar ba pare nag ñu ne nit ki du yokk ci yàlla wala nit ki mënta am ay may yu ko yàlla di jagleel ci nawaafil yi wax dëgg yàlla bu la ko nit waxee itam yow doo ko mën a nangu lu foor lii ngay dëkk di ko wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, lu métti métti rek yàlla dina la gis dana jo xam nga alquran bu waxee ne bu ngeen yi lépp lu ngeen nidirati na ngeen fexe def ko yàlla xam na ko wala bu ngeen fasante kóllëre na ngeen ko matal loolu mën nga ci dugal tariqa kay mën nga ci dugal wirdu yi nga xam ne da nga dem ci ci xaasu tariqa bi nit ko am digg ci tariqa bi ñaan ko ko mu jox la ko nga koy wird nga nisaral ko ne dootoo ko ba sa giiru dund dootoo ko boole beneen wird mu wax la charte ya charte yi mu ci biir moo tax mooy dars bu war a ñëw ni dañ ko gis mu wax la charte yi nga toppatoo ko ba mu mat loolu mooy nisar te yàlla wax na ci alquran suratu baqara ne wa ma anfaqtum min min nafaqatin bépp financé boo xam ne financé ngeen ko aw nadartum min nadaratin wala ngeen dégg nga nisere ci dara nisere ci arab mooy danaa def nangam yàlla mu ne su ngeen ko defar su ngeen nisere ci dara fa inna allaha yaalamu yàlla xam na ko yàlla xam na ko mooy ne na ngeen fexe matal ko li tax yàlla bàyyi xel ci suñuy nisere mooy ne buñ nisere ci dara nañ ko matal kon nag tariqa jàppee ko ci mu nekk palaasu nisere nisere naa def istixfaar suba gi wala ngoon gi nisere naa def laa ilaha illallah nangam. nisar naa def jawaratu kamaal julli ci yonent bi nàngam wala boog ndax baat yi ñu ci julli yonent bi moo dérange gars yi dafa foor de arab yu xóot la te leer te neex te foor te wax dëgg yàlla ah ginnaaw boo ko déggee ci jawaratu kamaal déggati yu mel nii ràbbin yu mel nii ci salaatu ala nabi lu jafe la kon daal mbokk mi lii mooy tariqa tijaaniya wax nañ la wirdaaw suba ak ngoon wax nañ la wasifa incha allah bu ñëwaatee dina la wax lan mooy charte tariqa tijaniya kon daal lii dañu waxoon ne mooy nekk suñu darsu tey ñu ngi ñaar yàlla lépp luñ fi jàng yal nañ ko dégg bu déggee buñ ko dégg yal na jëriñ fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom barki borom téere bi di moolaana cheikhul islam wa saadatul anam Eh, beneen yoon ñu ñëwaat continuer incha allah seen mbokk la Assane Kébé Soufi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.